ñun ñëpp d'accord nañ le lislaam santaanul yàq santaanul tooñ santaanul jël alalu jàmbur santaanul lor nit ci côté bi mu mën a doon santaanu donc moo tax ñu ngi ñaan ñu delloo si xel yi bu baax delloo si xel yi ci biir kër yi jàmm am parce que Sénégal gii ñu ne ci la jàmm rek moo ko jig ay mbokkoo fi ne ay ay ay ay dëkkandoo yu jegee fi ne ay kilifa yoo xam ne dañ leen di wormal ci àdduna bi yëpp ñoom ñoo fi ne kon yu mel nii bu amee en tant que ay mouvement nationale des arabisans mënuñu cee bañ a wax ñun mënuñu cee bañ a àddu fu ñu dem mënuñoo ñàkk a def li ñuy naan remobilisation des troupes waxtaan ak imaam yi waxtaan ak association islamique yi waxtaan ak kilifa yi nga xamante ne seen kaddu jote na suñu kaddu jotewul am na kilifa yoo xam ne bu ñu waxee ku mel ni man dana dégg bu ñu waxee ku mel ni seen dana dégg bu ñu waxee seen kaddu mën na yegg ñun su fu ñu kàddu yeggul mën na yegg fu kàddu politicien yeggul donc loolu dafa baax ñoom ñuy wax bañ a bàyyi rek média bi ah ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla seen bopp rek la ñuy waxal parce que société bi Sénégal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqool Sénégal bu amee jafe-jafe ñun ñëpp la amal jafe-jafe donc loolu mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon a wax ci ko do beneen bi wax nañu fi rôle bi jigéen am wax nañu ko sànq beneen wax ci góor mu kallaf julit dafa am loo xamante ne boo ko defee bakkaar la julit warul njaalo julit warul dem foo xamante ne yaxayti l'islam da la condamné loolu dafa leer l'islam dafa am lu mu teg bu nee l'islam di la wax ne boo tolloo ci takk soxna takkal soxna boo tolloo ci dolli beneen dollil boo tollee ci wut may na la ba ñeent ngir faggul la ay tuuma la pour setal la man la encadre ba nga xamante ne yenn tuuma yi yenn euh, tuuqi duuna yi doo ci dugg loolu moo tax lislaam indi loolu beneen bi lislaam dafa ñu yar yar ci naka mooy libu ñu njëkk a jàngal wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sab ah yéen im yéen xufaasi Cerno Moussa bu la ne bu leen jege fuy njaalo fu ñu leen di fu ñu leen xam ne foofu bu ngeen fa demee man nañ leen tuumal njaalo bu leen fa dem wala taqrabu la doxul bu leen njaalo bu leen jege boor nag pour sàmm sa der la bañ a yegg ci foo xamante ne njaalo la kon li am diggante ñaari sénégalais la am bu góor ak bu jigéen xale bu am vingt ans ak mag bu am quarante six kon jàpp naa ne comportement wu jullit bu fa amoon tuuma sax mun naa ñàkk am li ñu lislaam santane comportement boobu bu ñu ko amoon je pense que ni tuuma sax du am mais nag malheureusement débat bi orienté nañ ko feneen yóbbu nañ fa foo xamante du foofu yóbbu nañ fa foo xamante ne sénégalais yi ku mel ni man ak keneen te waxte yàlla rek a tax du loolu la ñuy xaar li ñuy xaar mooy fahkum baynahum bil adl nañu àtte ci ñaari jullit yu jote ñaar yu góor wala ñaar yu jigéen wala góor ak jigéen ñu xam ne diw mi moo am dëgg parce que ci dëgg rek ci dëgg rek la stabilité di am ci dëgg rek la yoon réew mi di mën a tegu ci dal mais nag bu ñu ko buggee ku mel ni oustaz Bachir am na tur oustaz Bachir am na lii wax dëgg yàlla lii moom malaaka la waru ko mën a dal léedéet loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ ko may moom rek mooy maasum koo xam ne du juum ñeneen ñu ci des ñëpp ku ci ne ñu toog fi ñëpp mun nga juum mais yonent bi dafa ñu jàngal ne julit bu juumee yéen ñëpp ay juum mais ñi gën ci ñuy juum kullukum xattaayin wa xayrul xattaayin tawaabiin yéen ñëpp ay juum mais ñi gën ci ñuy juum bu ñu juumee ñu jéggalu en tout cas loolu mooy ci li nga xamante ne mooy taxawaay julit ñun nag mouvement national des arabisans républicain ñu ngi feddali suñu engagement ci côté président Macky Sall nañ ko wax nag président def na fi loo xamante ne wax dëgg yàlla taxaw di ko tudd du gàcce maa ngi ñaan responsable yépp ku ci ne gox ba nga ne nga def ni maître Djibril War def nit boo koy jàppale ya xayti koy jàppale ba mu jeex ñun de dañuy wax ne euh, Macky Sall jox nañu la lépp ba mu des suñu diine lépp loo soxla suñu alal suñu doole suñu kattan suñu xam-xam jox nañu la ko pour accompagner la parce que yóbbu nga Sénégal foo xamante ne wax dëgg yàlla ñun ñii jàng arab musuñu ko yaakaar xam naa maître dana fi ñëw 1960 à nos jours amul benn arabisant bu mus a am financement déedéet da ngay jàng fukki at ak ñaar fukki at ak juróom boo paree sonde yu ñu dajale ci koñ bi sarax la président Macky Sall moo dindi loolu jàkka yi oustaz ya fa feesoon jumaa yi da ngay ñëw ci jàkk fekk fa 50 imam ñi eh, ñii iqtisaad yi lañ jàng ñi commerce lañ jàng ñi ay médecin lañu mais boo jàngisee boo ñëwee ñi ñu doon jàngal ñun ay ministre lañ ci pays arabe yi yow boo ñibbisee yow imaam rek oustaz imaam oustaz imaam cours à domicile rek président Macky Sall moo fi dindi loolu bi mu ñëwee moo reconnaître bac arabe bi ba man ma mun a liggéey ci fonction publique samay morom mun cee liggéey ma mun a am financement kii mun a am financement c'est parce que ne kooku wax dëgg yàlla jar na jàppale. maître ñun de wax dëgg yàlla dañ ko yërëm yërëm bi ko yërëm mooy yenn ci responsable yi seetaan yi ko seetaan te warul parce que jiw leen ko jox na leen teraanga jàppale na leen. fépp foo xam ne Sénégal soxna na fa yóbbu na fa turu Sénégal ñun nag yàgguñoo juddu mais nag fekkee nañu ñaari nguur yu fi weesu li fi Macky Sall def ñu ngi ñaan keneen bu ñëwee jéem a def li ko ëpp mais du yomb loolu daal laa bëggoon a wax ci ci ci ci ci côté boobu maître maa ngi guddal mais xam naa guddal naa ba pare mais daal won la le ñu ngi lay yónnante ci président nee ko vraiment kontaan nañ ci sa taxawaay kontaan nañu ni nga ñu accueillir fii bu ñu jógee fii commune Dakar yëpp dañ ko def bëgg nañu école bi parti mu compagnie ci ci loolu ñu ngi sa gannaaw di la déglu lépp loo ñu tere ñu bàyyi loo ñu digal danañ ci góor góorgóorlu ay ndaw lañu mais nag ay ndaw ñu responsable lañu président depuis bu ma dénkee mouvement bi du ma fi def lu ko umb lépp lu ma def damay def rapport dem seen ko présidence du ma ci booleel wax léeg mu ne boole mag nit mu ne président nee na nga def lii nga def lii ci loolu laa ne nekkuñu ci xuloo nekk ñun ci xeex depuis novembre bi léegi ñu commencé amul benn région benn département benn commune bu ñu dem mu am coow parce que l'islam jàngaluñu loolu dafa ñu jàngal jàmm dafa ñu jàngal yar dafa ñu condamné ba am na loo xamante ne ñun sañu ñu koo def loolu laa ci bëggoon a wax